enregistré leen lii ngeen déglu bu baax Kouthia li mu yàq Pape Cheikh jàllo déglu leen bu baax a baax a baax a baax a baax waaw. parce que man yàlla dafa bind ci alxuraan ne. Mhm. pour mu cautionner njaalo. Mhm. il faut xam ne bokkuñ mhm. xamuñu mu daje ci benn moment boo xam ne dañuy fekke action bi à l'œil. nii. mu koy soog a cautionner. pour nga ne kii njaalookat la. man bi ma déggee ñu am ay parcelles Diallo góor jigéen la dama ne non man góomu loolu. Mhm. mais bi bi jabaram bi mu njëkk a am doomu Aida Patra. waaw moom ma njëkk wax na ko dafa moom dafa ñëw ubbi bunt bi. Mhm. fekk jëkkëram ak góor. Hmm? ñaan baat mu takkaat beneen jabar bu mhm. ñaan baat. mu takkaat kiyaa bii ma lay wax nii kiyaa. waaw bi mu mujjee takk. kiyaa bett te ñoom ñett ñëpp dama wax ak ñoom dafa wax ak man bay jooy dama ko caa waaw munoo ma dama dama metti sama àdduna mooy kii bi muy dugg ci moom. li hmm. ma déggoon yëpp moomu ko mais kii moom ko xamee. xool bi ma ko hmm. hmm. ñëwee jox ñu dama jox si loxo. dama téye sama loxo. ah waaw. wala saa yoo laay nuyu dama la ko noonu <laughs> garaawul. léegi na ma préparé rek li man leen ne boo xamee ne jiw boo jiw la bu ko allahu akbar ma ko jox loxo ma waxantu. Mm-hmm. comprends nga. Mm-hmm. Mm-hmm. quatre vingt dix pour cent ci li muy wax man lu ma man lu ma wax dama koy assumer. Ah, man lu ma wax xanaa ba ma déggee wax yi ñu ko yónnee. dépp ma naan Kouthia Kouthia ñëpp naan Kouthia Kouthia dama ne damay woo Kouthia parce que man Kouthia man yàgg naa wax ak yow nga nekk sama xarit. la wax ne. musuma dégg si yow dama wax ne wax ji. koo koo doo koo kalaan jigéen góor ñoo xam ne mun naa leen gindi bon na mais Amina weere na billaay li ma la dafa waroon a tey bala ngaa génn di bala interview di woo média da yéen xam ngeen aadam moom dafa mën a palaanit buy woo nit day def comme jikko seytaane lay ñëwee après nag ci lay yollee koo woo keneen ki woo keneen ki am ay preuve yu leer a ñëw live duma nit déglu ni may waxee moom comme ci kii sa baa saytaane moom laa faral Kouthia tey laay doxaan sa ndey ba réew mi yëngu nan déglu rek. da nga war a wax mu ngi parce que mu ngi wax ne gel mu ngi Amina wax a Kouthia doon wax ak benn gelam mu fuité du sama gel. sa jabar la. ma jabar yaa ko takk. dama ko takk ci faratu suuf sama jabar la. ngeen baaxul. lu ci mel ne parti bi muy waxee naan ay Amina Guèye laag dafa seq ak wala keneen ak keneen ak keneen yooyu vidéo yu monté la. naan ko Kouthia Kouthia ñëpp naan Kouthia Kouthia déedéet dama ne damay woo Kouthia parce que man Kouthia man yàgg naa wax ak yow nga nekk sama xarit. la wax ne. musuma dégg si yow dama wax ne wax ji koo koo bàyyi yàlla doo ko kalaame doomu aadama mais bu demee nag ba ci commencé excès. jigéen boo xam na mun naa leen na mais Amina na billaay li la wax dafa waroon a tey bala ngaa génn di bala ngaa génn di def interview di woo média da yéen xam ngeen Adamo dafa mën a palaanit buy woo nit day def comme jikko saytaane lay ñëwee après nag ci lay yoon koo woo ki woo keneen ki am ay preuve yu leer a ñëw live du ma nit déglu ni may waxee moom comme ci kii sa baa saytaane moom laa faral ku caa laay doxaan sa ndey bëriw mi yëngu nan déglu rek. Amina mu ngi wax ne Kouthia doon wax ak benn gelam mu fuite du sama gel. sa jabar la. ma jabar la. yaa ko takk. dama ko takk ci faratu suuf sama jabar la. maa ko takk lu tàggoo mooy chantage. ci ma laaj xaalis ma ne ko du ma la jox bu la ma daal yàq ba àdduna waaw ku la yàq ba àdduna yëg ko mais ci biir laaj moom wax na la. moom moom la. jigéen baaxul. fii day summeeku ba wàcc ci koy yi mais bu ngeen gisee koyu koyu kuccaa bi bàyyi àdduna bu ngeen gisee dambalu kuccaa bi ba àdduna mais foofu duma fa ñëwagul duma fa ñëwagul wuy ma duma fa ñëwagul euh, fi may ñëw fi may ñëw xam nga lan la dama bëgg ngeen déglu audio yi ngeen xamante si nii kuccaa démentir na ko ci li ko Amina Poté waxal ñu ñëw ci Pape Cheikh na dambal yi ak ko yi ñooy fee ñooy tëj émission bi ñu déglu li mu démentir wuy ma damay fay sama connexion pour kenn bañ maa woo parce que li ma yore tey nit ñi danaan ma woo damaa fay sama connexion bu ma kenn woo déglu leen démentir yi ñu doog a ñëw Ok, il boss. il boss. ñu déglu Kouthia li mu démentir. léegi maa ñu naan ko Kya. waaw. ok dama leen di wax leneen rek li mu def. audio yi moo ko divulgué. moo ko génne. waaw waaw fi nga nekk moo amul réseau moo tax du ma la dégg bu baax. ma ne sa jabar ji nga doon sëyal moo génnee audio yi. ak dafa seq ak bii wala keneen ak keneen ak keneen yooyu vidéo yu nu monté la. yooyu dafa monté ma yooyu déggu ma la man yooyu xaw ko ba gis nga man je naa trente ans de carrière man du ma fenantul ma waxantu. Mhm. comprends nga. Mhm. Mhm. quatre vingt dix pour cent ci li muy wax man lu dama koy assumer. man lu ma wax xanaa xanaa ba ma ko yónnee. dëpp dama ne woo Kouthia parce que man Kouthia man yàgg wax ak nekk sama xarit.

wax na tamit ci Pape Cheikh Diallo ne góor jigéen la déglu leen bu baax ma tegalaal leen Kolle Faye mi Kouthia di liggéey déglu leen bu baax. Kolle Faye turam dëgg Aminata fay la yaayam Sira Diallo yaayam Sira Diallo Sira Diallo yaayam ñetti téere ñu takk yu ñuul yi dañ koy safu diis dañ koy safu diis. nekk ci bus bi kese damay dem ci toilette wala ci pos ma bàyyi ko ci mu dem. fekk ko pendant remplir ak suuf bu tooy. jël kubéer bi bëtt ko pour moom euh, air. ko. su may tëdd guddi teg ko ci taal bi deux heures temps su ma jógee teg ko su may sangu pour liggéey teg ko fa sept heures ba huit heures su may dem teg ko su ma ñëwaatee ngoon si tamit defaat noonu teg ko chaque pendant sept jours pendant sept jours yoo xam ne sans arrêt suuf bu tooy moo jiitu teg ci garab bi tegaat ci suuf bu tooy bënn ko pour mu am